maa ngi leen ñëpp. dégg naa gars yi nag da koo dégg de. <laughs> non Adamo moom vraiment ëpp maa moom problème Adamo moom mos naa ko fi ko ni mu yëngu. Ah. vraiment bi mu na ma téléphone. ne mm, bi ma ko envoyé vidéo bi comme ni may def gars sax doon naa séntu mu saaga ma waaye duroo ma ne ma yow affaire yu ñàkk mais bi ma ko paree bi ma ko envoyé vidéo bi da koo rafetlu ne ma booy sa liggéey bi am na solo comédie bi ngay def moom ñun ñëpp dañu koo soxla. waaw ne ma man bis naka tey vidéo yi dama koy suivre. ah gars yi nee na woo Adamo Adamo jaar fi muy jaar gars yi. non non xaw ma ngi am ay problème xaw ma ku demee noonu yow. day yaa mën a leeral tey. non non man Adamo moom vraiment bi ma ko wooyee moom saagawul bi ma ko wooyee moom dafa rafetlu sama liggéey da koo rafetlu ni ma yow de wallaahi gis naa ci yow te bis bu sa talent yeewoo sax yow di nga gis li ma la wax. vraiment moom Adamo loolu la ma xam ne gis naa ci yow talent te bis bu ma la moom loolu la ma waxoon. tey jii man nga ñu may benn appel rek laataa ñuy tëj euh, jataay bi benn appel ci li nga ko defee ndax gars yi nga xam ne mm-hmm. ñooy siifur Thioune Boutique man a xam naka lay dundee wala naka lay defee appel yooyu tey jii. man mm-hmm. nga xam nga ñu may benn appel. waaw parce que comme li nga wax noonu euh, sama téléphone parce que man gars yi dañ may jël TikTok di ma envoyé ay numéro yu bay pour ma leen di woo. Mm-hmm. waaw dañ may woo woo di ma envoyé ay numéro pour bëgg ma leen di woo. waaw am na am na koo xamante ni ma xool joxoon na ma ab numéro pour bëggoon ma wol ko ko. te jamono ji yëpp mi ngi ci topp dama ci sonal. ma ne ko nag sëñ bi da nga may dimbali rek problème màggal gi moo tax waaw du màggal gi jaal rek incha allah rabbi euh, dinañ dinañ ko def. gaa yi neen yow nee nga yaay yaay yaay fi mu ne daal moom nee nga fi mu nii kenn maam yaa teg tànk daal nga bëgg a wax dégg naa de. gaa yi waaw waaw loolu de moom. loolu moom lu wér la moom. yaay borom. waaw loolu de moom lu wér la moom TikTok moom. vraiment isaay nii moom. kenn mënutuñ see génne moom waaw ah, ki may woo ni sëfaru càq-càq la dañ maa joxoon numéro téléphone am. Mm-hmm. ah waaw salaamaaleykum. salaamaaleykum. kooku la Cheikh sëfaru càq-càq. waaw moom la jox de. waaw si jàmm baax. waaye man damaa amoon bagage bu ma bëggoon mu dem de. bagage waaw te dama koo yàkkamti lool de. Ah, maa ngi ni ak Daaru Salaam bi rek. ak Daaru Salaam. waaw. foo koy yóbbu. maa ngi koy jëlee fi yóbbu ko Saam. Saam waaw. waaw mën naa nekk waaw mën naa nekk. waaw da koy yóbbu Saam quoi parce que benn àll Dakar moo ko war a yóbbu te da ko war a yóbbu Dakar léegi. Ah, léegi nii waaw léegi la. ah Saam Saam Saam naa ko def 10 000 parce que da ngay teg yi quoi moo tax. ah. man doo ñëwee naa ko def 10 000 parce que da moo tax. chèque yi waaw waaw ah, ah amul problème mais wuy ma. waaw. Euh, dooy ñëw. waaw dagg sa yére tuuti nga indaaleel ma ko. waaw waaw sa yére bi. sama yére ma dagg ko tuuti indaaleel. na nga ko parce que daa am ay sacrifice yu ma ko war a booleel pour mu war a dem saam. ah yow saa yow. nga wax na waar ma dagg sa yére la bopp gileem la moom nga ma yóbbul saam. sacrifice. waaw. saa waay man man du ma yóbbu ay ay man du ma sabóor ak yóbbu bagage sax man daanaka ay ay kilo lan xaw a sànq sax fu mu nekkee fi mu ne. déggu ma. waaw yow ku yow ku la la booleeg ma. dem wala mënut a dem. a dem kay déedéet yow sa waay yow saa waay kaa koo koo rek koo koo tay la nga bëgg saa yi. yow laajuma sànq laajuma sept mille cent. waaw na waa ji wuy ma. waaw. waaw coupé sax man man xaaral ma ne bëgg waar man barki ne mooy ma woo wax mel ni tey ti wax ah wuy ma. waaw wuy ma waaw léegi wuy ma waaw wuy ma allo. waaw gis mu mel comme yii la rek. nag kii sëfuru cag-cag la ñu joxoon ma numéro hmm. te maa ngi koy doog am fi temps pour woo ko. Hmm. waaw. waaw. Hmm. tuuti dégg naa am mbër nga woon dama ko fàtte dégg naa gars yi ne am mbër mu mën na bëri sax nga. mbër laa woon waaye dama ci amul ndam. lu tax laa woon te xam nga mbër daa yomb ndax dañ lay daan rek waaw daanu ko gars yi damay dem defaru bay bëgg a dee heure boo demee sëñ bi ñi ñi daan la ba benn suur mos na ma mos na ma am combat boo xamante ni damaa dem ci benn paa ne am combat paa bi seetal ma ne ma yaa koy daan boobu maa ngi tuddee sama bopp ndongo daara paa bi ne ma kii doo àggee prip lañ arbitre def nga daan ko man it ma gis loolu gars yi ku ma dem gars yi ne ma cuun entraîné na sa waaye doo entraîné man la ah man ne entraîné ndax paa maay daan léegi bi ñu ne euh, ñaari fanante ci combat bi ma ñëw ci paa bi bi ma ñëwee paa bi génne la ma ñett si yaada sarax na ma génne ñett si ma jox paa ñett si yaada paa bi ne ma doo àggee da ngay daan man damaa dem di léewtoo jekk-jekk gis bopp suuf muy miir <laughs> gars ñëw yëkkati ma léegi bi ma xëyee dem ci paa bi fekk paa bi benn si yaada ak di ñaari tege ma ñëw ne ko waa père li nga ma waxoon man damaa àgg ñi daan ma de bi ma àggee paa bi ne ma yaa yoroon fi tubaab waaye dañu ko walbati man nag waa Sasiya dafay nekkoon yëpp dem. <laughs> waaw moo tax ma xam ne làmb moom yombul quoi vraiment dafa am ñu ko moom dañ leen koy bàyyi. moo tax nga bàyyi. waaw loolu looloo tax ma bàyyi bëri te xam ne bëri moom yombul quoi. <laughs> ok jaajëf waaw. kon jaajëf mbokk yi doon bàyyi xel euh, Sénégo ñu jaajëfal baax su ne invité tey nekkoon Thioune bitik nekk tiktoker nekk fii si diwaan bu Touba ñu lay jaajëfal bu baax waaye di sant mboolem ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel euh, siit bi euh, ci jamono bu nekk ñu lay sant baax di la gërëm Thioune. waaw ndeysaan comme li nga ko waxee rek maa ngi lay jaaraat baax baax baax wax dëgg yàlla naa mbégte ci ñëw bi ma ñëw fii wax dëgg am naa ci mbégte lool ñi jàppale ñoom am naa ñoom mbégte comme que amuñu droit tudd ñi ñuy jàppale mais ñi nga xam ne daal ñooy ñooy sponsoré Thioune Boutique vraiment te bàyyi yëpp ñëw di ko sponsoré maa ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax a baax di leen ñaanal jàmm ju bare bare bare bare vraiment naa ci ñoom kontaan bu baax am naa ci ñoom bu baax a baax a baax a di nuyu ñuy siifur Thioune Boutique ñëpp maa ngi leen nuyu di leen siyaare ndax temps yombul kon duñ bàyyi sa temps di leen seetaan rek vraiment amoo lu amoo lu di leen sant di nuyu nag laat création bi nga xamante ni moo jaar fii. waaw mm-hmm. ñu jaajëfal bu baax Thioune Boutique sant gërëm mboolem ñu doon bàyyi xel ñu leen jox dig daje ci beneen entretien wala beneen invité ci Senego TV jaa ngeen jëf.